jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñoo ngi seen émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo tey nag ñu génn ñëw seet si ki nga xamante ni mooy double moteur ñoo fekk ko fii mu def réveil musculaire ah ñu bëgg waxtaan ak moom ndax gëj nañ ko gis depuis combat am ak ba léegi gisuñ ko fenn ñu bëgg waxtaan ak moom nag ci lu bëree bëri double nuyu naa waaw ñu ngi lay fay woo ginnaaw ñu sant yàlla julli seen di sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu waa adduna di nuyu waa Sénégal di kilifa diine yëpp waa Touba waa Ndiassane waa Tivaouane waa Thiénaba waa Kaolack ñu ngi nuyu ñëpp xam nga di siyaar suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tëdd si hôpital yi di leen ñaanal wér suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk si kaso bi ñu caabi fii de ñu leen di ñaanal yàlla génne leen leen siyaar di baax a baax di leen jàmm di leen siyaar bu baax a baax di leen nuyu di jàmm di leen fa ñu tëdd euh, yàlla yëkkati leen fa jàmm bañ delluwaat seen mbokk yi mais Double ñu gis la nga doon waaj combat ba nii nii nii sax may wax ak yow combat bi la moo taxoon nga yokk poids bu bari bi nga yokk waaw combat bi moo ko laajoon rek xam mooy li ma sax rek ñu ne xale làmb lañ am làmb moo tax tamit amaana ñu bàyyi suñu métier bàyyi suñu lépp concentré wu ci làmb ji en plus am ñu topp ginnaaw yaakaar si ñun kon war nañ saa ñëwee rek am changement daal loolu kese la liggéey kese la du dara. mais ñu bàyyi dañ ne combat bi dafa xawoon teel ci yow parce que gis nañ da ñëw ba ci biir làmb ji après puuso paaso ñu bàyyi ne combat bi est-ce que teelu woon ci yow. waaw loolu ñu sant yàlla rek. parce que làmb ñëpp gis nañ ni mu fa demee làmb ji amaana tey jii nii ñun dara teelu suñu ay xale lañ mooy li ma la wax dañ def suñu ay preuve ba àgg si gars làmb ji nag yàgg na parce que combat boo xam ne yaa ngi ko waaj deux ans dafa métti amaana loolu moo ci si sonal waaw yàggaayu combat bi xam nga waxtaay bi yàgg na métti na da ngay dem ba da am ay problème financier da nga am problème moyen da problème yu bëree bëri mais xam nga làmb moom ak loolu ànd li ci laxus yëpp doo mën a toog di ko wax mais ñu ngi si sant yàlla daal bu baax mais keroog ñu gis combat bu yàgg yàggaay combat bi sonal la woon. non loolu sonal mooy li mu la rek ñu lay xale leen di liggéey ñoo ñuy bëri ñoo jiit si làmb kon tey suñu ñëwee tamit dëggal suñu bopp ak suñu jàmbaar amaana moo ñu àgg moo ñu yóbbu fii ñu àgg tey waaw moo tax dara méttiwul suñu eh, parce que bi ñuy dem aussi tam soroon nañ lépp sóoroon nañ combat bu gaaw sóoroon nañ combat bu yàgg moo tax dañuy liggéey lépp nga xam ne bu yàggee itam du la jaaxal bu gaawee itam du la beet. la moo tax xeexoo. waaw mooy li ma la wax rek xam nga làmb ji moom bëri dóor la ñu wax boo xoolee làmb ji métti woon na suñu mooy li comme li ma la sànq rek parce que làmb moom des fois dangay ngay wàcc lii. dama bëgg dama bëgg mu leer ndax Wassare lañ nekk li ma bëgg xam mooy dañ la jékku mystiquement ba nga yëg ne tey dañ la jékku moo tax nga téye sa bopp. non waa làmb ñëpp gis nañ li fa am làmb ko ko seetaan xool Double Moteur boo xam ne Double Moteur bi daan ñëw ak bii du benn combat boobu boo boo xoolee boo xamee Double Moteur dëgg da ngay xam ne double mi doxul te loolu Sénégal yëpp teg nañ seen bët te ñëpp wax nañ ko waaw kon loolu jarul di débat quoi pour man ndax loolu lu fàng la ñëpp xam nañ nu mu demee. kon daal su ma déggee mooy da doon pour làmb ji jeex nga mën a nekkaat. waaw noonu la demee quoi dëgg yàlla xam nga noonu la demee nag. ñoo ñëw ziara parce tamit am na lu ñu waxoon dem ci signature yi am na lu ñu waxoon ci interview yi te loolu lañ dañ ko wone yaa ngi dégg parce que sama adversaire tey jii nii combat bi mu taxawee fu nekk la doon taxaw di wax ñun waajtaay combat bi kenn gisuñu benn yoon ñu wër di wax duñ ñëw stade ñu génn si na ñu génn fenn ñu ngi laax suñu waxu di liggéey. parce que tamit combat la boo xamante ni tamit majeure partie moom lañ jox favori. waaw lim ñu jarul mooy li ngeen gis parce que majeure partie moom lañ jox favori. ne lañ moo ëpp doole moo dàq bëre xam nga moo ëpp doole moo dàq bëre moo ëpp ñaan moo ëpp lépp ñun combat bi joxuñu si woon dara. waaw moo tax kon nag lii rek la mënoon demee maanaam ñu liggéey ba nga xamante ne tey jii fu ñu taxawee dañ gars yi dinañ xam ne li ñu yaakaaroon ak li am du benn te pour man loolu mooy l'essentiel bu boo amee ñuy sonn ci yow seen xaalis di ci liggéey kese moo la war rawatina nag nga jël combat ñëpp jox ko favori jàpp ni moo ëpp doole moo dàq bëre moo ëpp lépp bu jàppee làmb jeex loolu la ñëpp kon tam suñ ñëwee mu demee ne tamit loolu dañ ciy sant yàlla rek. amoon na doole. non ñun gisuñu am doole moo dëgg yàlla. gisoo am doole Quench. non non gisuñu ko te yen yéen ñi aussi tamit gis ngeen loolu parce que boo xoolee làmb ji ñun jàppuñu benn yoon dañ koy ubbi franc muy bëree amaana làmb moo doy waar rek làmb moo doy waar mais moom keroog position bi mu taxawee ñun bu fa taxawoon barke Alxuraan làmb ji doom minute. dama gis ñu ci bari euh, dañ dañ ko dañ ko dañ ko jox toor ndax nee nañ mu jàpp double moteur ba double moteur doxul daa am doxul munul ci moom daal. waaw mooy li ma mooy sant yàlla rek parce que suñu jom ak suñu jàmbaar mooñu ñu génnee ci combat suñu jom suñu jàmbaar ak suñu liggéey moo ñu ci combat parce que combat bi dañ dajay coono dañ see liggéey dañ see liggéey lu métti bi ñëwee nag loolu la ñu appliqué amaana loolu bokk na si ñu dimbali waaw coono yooyu ñu si daj amaana moom la ñu yàlla fay. mais bi nga génnee ci làmb ji dama cee gis mbir yu bari dañ la commencé ñeme wala dañoo bëgg a bëri ak yow parce que nee nañu euh, coïncide de la weer dafa wane sa cuune. waaw loolu dañ ciy yàlla rek xam nga tey làmb ji boo xoolee moox naa la ko sànq la koy waxaat weer bu fekkee dafa am moom moo weeru suñu adversaire moo weeru parce que jël adversaire ñëpp la yaa man yaa ëpp doole yaa ëpp lépp nga ñëw puso paaso boo leen seetaan combat bi coïncide amul fenn fu ma ko jàpp action yi fa mu yëpp moom mooy jàpp heure bu ñu doon day jàpp ñaari ngemb ba tey amul fu ma jàppee ngembam ci loxo yi laay téye rek. yaa ngi dégg. voilà ci loxo yi laay téye moom mooy jàpp ñaari ngem mooy ndengeñ mooy bët yaa ngi dégg parce que lim foogoon amul jàpp na nu moo bu doole loolu noonu si dante nekk yëpp mais biñ mbëkkantee wax naa ko gars yi nee naa doole mënoo ko xam ci ni tànk jàppante woo leen moo tax gars boobu noonu xamante nañ suñu biir bu baax a baax te man combat bi dama ko si doon mbëkkante ak ñoo xamante ne man leer na man leer yàlla ñun ñëpp doole ko woon si kon moo tax affaire doole mosuma koon sax xalaat wala dara te bi ñëwee gars yi gis nañ loolu noonu dama koy ubbil di ko bàyyi muy bëri mu ma yàgg fu sori bu dee weeru moom moo weeru moom mooy cuune parce que boo ne yow de bu buñ ñëpp nee da a bëri yow nga jàpp ñaari ngeen ba di ndengeñ xamoo sax lan nga war a def cuune foofu la tàmbalee ndax man amul fenn fu ma ko jàppee man moom mooy jàpp ñaari ngemb dajale bu mu baax muy ndengeñ loolu cuune la man su ma ko jàppoon moom ni ma jàppee laa laa mu jom minute wallaahi azim barke alxuraanu karim mais dama dégg nga ne moom nee na yow yaa wax bi ngeen bàyyantee da doon dee rek ñu doo daan. maanaam. bi làmb ji jeexee na da doon dee rek fii ba gannaaw suba sa ngeemu du laal suuf. non moom mënumaa daan déggoo li ma la maanaam tey buñ doon bëri dix combats mënumaa daan balaa nga ko doon xam tey jii ñu géewaloon ñu contact fii wala dara wallaahi azim dama koy fooyee xam nga làmb li ci laaxu dafa bëri mais bu doon contact la ñu géewal fii ma fooyee ko la wax. mais bu ñu doon bëree fii ba suba mënumaa daan man loolu leer na mën nañ parce que xam naa ne bëre bi wax man xam naa sama bopp ndax tey mënoo juddoo si taan bi yoroo si taan bi kenn werantewul loolu man du ma werante ndaanaan xam naa ne ndaanaan mais dama bëgg ma moom gars yi gars yi xam nañ ne lim foogoon amul mais moom mu xam ne lim foogoon amul comprendre nga parce que tey ji boo xoolee làmb ji xanaa tey la ñuy doog a sax mën di wax wala dara moom lu nekk mu ngi koy dégg. te avant combat bi looloon dégg moom moo mën moo bu doole bu jàppee làmb jeex. voilà xam ñëpp loolu lañ doon wax ñu ñëw eh, stade bi wanewul loolu noonu moom mooy jàpp ba jekkal ndengeñ deful dara. est-ce que est-ce que du yàq da sa ñu gis ne amoon nga alir boo ñëwee ñu da nga mag si ñu ne da nga ko du yàq daal sa alir. non loolu amul loolu lu mu yàq suñu alir mooy li ma la wax rek ñun ñu ñuy bëri yëpp ñoo jiitu si làmb ñun 2015 lañ dugg si làmb def 12 combats. am dix victoire yaa ngi dégg am benn machine nil benn defet te suñu ñaari waaw muy contre Mame Balla sama combat coin si bii passé machine nii la ñëpp gis nañ ñu dem jël amul même sama combat Mame Balla même chose jël amu fa par décision arbitre la mais boobu tey sax mën nga ne defet la parce que ni mu demee la moom moo jekk woon moment boobu noonu arbitre yi tas lamb ji parce que loolu règlement la comprendre mais combat bi gis nañ li fa am puusul paasul day jàpp ñaari ngemb di ndengeñ dafa fa dara ñu wax dëgg bu ñu naxante tamit quoi yaa ngi dëgg kon doole bi ñu doon wax tamit xam nañ ni amul feeñ fa buñ doon ñu doon wax moo ëpp doole ñëpp mujj nañ delloo war ma loolu. wallaahi azim barka alxuraan maa ko ëpp doole foofu. tool yi fan nga tool. waaw fi ñu nekkoon rek nekkaat suñu yoon rek mooy li ma la wax parce que tey jii gi nga làmb di nga si jóge sax affaire yi gën a leer combat bi loolu la demee dañ ciy sant. léegi ñu ne ku daan dem ku daanu xaar. waaw loolu dëgg la mais ak mbërëm mbër daanu na fi sax dem ñaata mbër lañ fi gis ñuy daanu di gën a yéeg si kaw mbër yi ci kaw VIP yi ci kaw pourtant dañuy daanu te duñ jóge fi ñu nekk voilà làmb dafa am nu muy dox ko xam la moo bon ci làmb yaa fuus mais boo ñëwee def li nga war a def tey jii nii tamit sa place ko mos wàcc li bon mooy ñàkk a def li nga war a def te ñun li ñu war a def dañ koo def yaa ngi dégg stade bi keroog lépp lu fa neex ñoo ko def. lépp làmb ñu ñoo ko fa andi bu ñu si géew bi tam dañoo dëggal suñu bopp wane ko ni ñu ñooy xale luñ fi yóbbul doo fi yóbbu loolu moo fa am kon tey jii ñun tànk kanam lañ am mais amuñu ginnaaw te àdduna yëpp xam nañ loolu noonu parce que biñ jógee si combat ba léegi aussi tam ñu ngi wax ay adversaires yoo xamante ni mooy lool noonu. mooy loolu ay adversaires yoo xamante ne tey jii amaana ñoom sax yooyu sax ñoo ko supérieur moom. tey jël combat yooyu. xam nga làmb dafa am nu muy doxee ñun ay mbër lañ xam na lañ am demul bëree. ñun loolu lañ am ci làmb tey dañu am staff ñoom ñoo yor wàllu làmb ñoom ñooy dox lool noonu lépp lu ñu xool ba ne d'accord nañ rek da ngay dem waajal sa bopp rek nekk si li nga war a nekk mais loolu ñoom ñoo koy dox. leneen lay daal dañ lañ xam ne dinañ ko ci xam xamu mooy lan mooy jóg ñu la ah, bàyyi sa combat ak diw gaa ñu ne ah, ñu ne waaw léegi leen li si ñoom ñoo koy eggali. keroog dama gis nga ñëw combat Abou Ndiassé ak euh, Pape Ndoye mais keroog bi nga ñëwee peut-être gars ay yéex nañ laa gis mais biñ la gisee amatuloo jàmm da nga mujjee sax dem yéeg ci kaw tribune ba parce que ku ci nekk naan moom laa bëgg a di la dëkk naan la wàccal ku ci nekk di wax. waaw loolu lañ ciy sant yàlla rek mooy li mu la wax ñun ay ndaw lañ ñooñ doon ñu dëkk ñëpp ñooñ jiitu ci làmb ñun 2015 lañ dugg ci làmb ñooñ bi ñuy bëri ñun bëriwuñu kon suñu demee tey defuñu fi tamit loo xamante ni jar na sax tey ñoom ñu ñuy dëkk wala ñuy bañ a bëri ñoom wala dara mais tey ji li nga woon moo tax même pas du loolu du loolu parce que tey jii mooy li ma la rek oto bi nekk si kanam la ñuy kenn du corné oto bi nekk si ginnaaw te tey jii nii maanaam ñooñu ñëpp amaana tey jii dañuy bëgg a bëri duul moteur pour am tour wala pour dem ci loolu kese la mais du leneen fii amul lu yomb làmb ji lu yomb wax ji moo fi nekk nii rek mais amul lu yomb du moteur amul benn combat combat bu yomb mosoo ko gis man damay xeex damay bëri du ma aw ma tànku ginnaaw du ma sàqi man loolu laa xam parce que tey jii nii maanaam man sama live dama ko jaayante avant ay làmb man dama koy wax chaque jour man li ñu ma dóor avant maa dugg ci làmb du ñu ma ko dóor ci làmb. loolu loolu la bañ dóor. nekk xam rek juddoo fii rëbës màggee rëbës yaroo ma rëbës xam nga nekk fii nii Dakar Plateau bi nii ku fi nekk ku nekk sa jeunesse day metti day tar loolu ñu may fondool ñu dëkkal xam nañ li may wax force day metti te góor mosuma yàpp man. loolu moo tax moo ñëw moo ñëw ci adversaire gis naa ku ci mel ni Coly Faye keroog mayu la jàmm ba keroog dem na ba buuxante na sax ci kaw tribune bañ naan lan moo xew ci kaw sa diggante Coly Faye lu ci nekk. waaw dara nekku la wax rek xam nga ñoom ñooy bëgg di bëri ñun te ñoom ñoo jiitu si làmb ñun nekkuñu fi di tànn kii la ñuy bëreel kii la ñu war a yoon moom sax dama ne du ma wax ci moom amuma dara lu may wax ci moom mais làmb affaire noobul la. yóbbante na ma nee na ma. fu mu jaar jaarloo fa fi mu jaar moo gën a métti fu fi nga jaar te boo fa jaaroon kenn du la dégg. waaw loolu na jël kon lu muy wër di ma dëkk di bëgg a man daru ko làmb dafa am nu muy doxee quoi ñu war a bëre promoteurs yi xam nañ leen promoteurs yi ñi ñuy dox xam nañ leen man amul benn promoteur bu ma ñemee woo. dama gis euh, ñu affiché sa combat yow ak moom dañ koy dox woo waaye loolu noonu erreur moo jëm ñoom mooy yooyu ñuy def la ñu war a bàyyi ñoom ñoo woo sunu làmb di wax genre yooyu pour man loolu gisuma journal promoteur yi si boppam moom woo di aalu di wax loolu noonu naan moom waxu leen ko war a woo démbale démbale si boppam woo ma expliqué jégalu na moom de bindu ko keneen ki moo ko bind wax na ma sax turam yaa ngi dégg na ma gars yi dañoo juum foofu dañoo def man leen nag am na yoo boo amee moom pour man balaa ngeen di réagir wala ngeen di bind war ngeen mën a woote laajte ba pare mais yooyu garaaw la mu problème. waaye man benn promoteur da benn promoteur damaa ñeme woo man yow ñu ko déggoo li ma la xanaa ku ñu ko supérieur raw ko ci làmb lañ may wax. lañ ñuy wax ñu bañ a bëri ñoom ñu jëluñu leen dañ di wax ay waxu qualifié bu ñu taral de bi si qualifié ko wax dëgg yàlla mais. su ma ñëwee sa diggante caat caat booy bamba invité nañ la ITV di la wax sa diggante ak caat booy bamba nga ñëw ko ak mu tàllalu loxo wala boog fi mu joxoñ yow fa toog sa diggante ak caat tax seeti naa ko nee na yow da nga wax amuloo fit ñemewuloo da toog di wax ak. waaw loolu lay wax la rek ñoom xamante nañ bu baax ay caat gaay man ñooñ seen kanam laa màggee. wax ji moom nu ngeen xamante. mooy seen kanam laa màggee yaa ngi dégg bëri naa seen koñ mbapat moo di booy kooku daan li ma la yàgg na yaa ngi dégg ma nekk booy bu ndaw xamante nañ bu baax a baax a baax moom moo tal ay wax na baay wax ji maa ngi ko dégg muy wax. dafa dafa jóge ci victoire faaw faaw mu li ma la rek moom dafa tal ay wax man taluma ay wax moom 15 combats la def 10 victoire 5 défaites naaru sokaal bi ko duuma daan ko fii moo ko jàppee amul minute yaa ngi dégg kon moom na bàyyi wax ji man dama def 12 combats am 11 victoire am am 10 victoire. am benn machine benn defet yaa ngi dégg kon tey jii am na yenn yoo xamante ni maanaam moom su koy wër di wax dafay wax pour neexal ñi mu nekkal rek moom sama combat ak Quench avant moo taxaw avant moo bëre moo ci sama combat moom lañ jëkk a dox. Abdoulaye Ndiaye du ma du ma bàyyi ma fenn Abdoulaye Ndiaye si boppam mu ngi may dégg bu baax sama combat moom doxoon na ko ba mu taxaw ba ñu woo ñu jour bi ñu ñëw war a signé. yaa ngi dégg. ngeen lépp lépp. nañ lépp ci kase ak lépp ba dara desul lu dem signé jëlee xaalis. ñu woowaat ñu laalax ci yoon bi lañ ñu woowee nañu carrément ñoom nee nañ ah instant nangam mooy lool nañ leen xoolal leneen kon suñ ñëwaatee fii di wër di wax. mais est que bokk nekkul boobu dañ koo xool xam ne baaxul ñu bàyyi. waaw ñoom la rek loolu ñoom la rek bu dee dañuy xool baaxul moom du mës a baax loolu ñoom la rek. mooy li moment bi baaxul ndax moment bi pare na pour bëgg yow. waaye xam nga gars yi fi ne ma wax la xam nga wax ci mbooloo dafa yomb xam nga micro yi wër la wala nga toog say booy gaa yi wër la ngay wax dafa yomb wax naa la ko dina sànq gars yi ñun xamante nañ suñu biir bu baax wax ji moo fi nekk nii rek mën nañ la wóor nag dëgg lay micro ngay talaxu di wax mais ñoom ñooñu ñëpp ku ma si dajaloon ci ruxulaa la bu ma la fu ma la jaar la foofu ngay jaar barke arxuraanu karim billaay wallaay watalaay ku ma si dajaloon ci ruq bu ma la ne jaaral nii foofu ngay jaar mais fi mu toll nii peut-être ci làmb wala ay mbooloo nii ku si nekk da ngay bëgg wane sa bopp man boo xoolee am habitude boobu wallaay man dama am kersa sax nekk si mbooloo tey jii nii di bëgg feeñ wala di bëgg a wane wu parce que amul njëriñ amul sens. àdduna loolu taxul nga bëri nit ki dëkk nit si mbooloo wala topp si mbooloo di coow taxul ngeen bëree am na yoo xamante ni maanaam damay gis yéen a mbëtt ko de mais loolu ñàkk respect la ñàkk jox nit ñi cër la. parce que tey làmb yëfu noobu la munoo gis làmb ñëw esaat làmb ji fees dell ñëpp toog amateur toog nekk ay noble sañse ba rafet ñëw cosaan nga yéeg ci ay tribune di xam nga di xëppoo ay suuf di saaga ay ndey di dépassé xam nga yooyu dafa rafetul quoi te mu leer leer yàlla yow ki ngay saaga wala ki ngay jéem a dëgg bu ngeen dajoon ci mbir ñemoo ko ne sa bët bi suuf ngi ci. mooy li ma la wax suñu waree bëre dinañ bëree. xam nga li a xam li ma a xam mooy. suñu waree bëree dinañ bëree làmb promoteur moo koy dox. gars yi nag seen wax dafa bari mën nañuy wax ni ci kaw nii de fekk li ñuy def ci suuf duñ ko wax ci kaw comprendre yooyu nag moom bëri ci làmb man moo tax man du ma bëgg nekk di détaillé ci ay mbër wala may wax ci ay mbër wala dara yaa ngi dégg promoteur yi xam nañ ñu war a bëre yaa ngi dégg. mais suñu la àndaloon avance Thiatou Boy Bambara di nga ko jël. déggoo li ma la man dama am staff sama staff ku ñu d'accord ne kii làmb la damay bëre moom. aw ma ci yàq ak defar sama staff bu ñu tax pare woon tey tey tey de caat wallahi azim barke alxuraanu karim du yàqee ci man billahi wallahi watalaay man aw ma lu ma ciy yàq lu ma ciy defar dama am ñu topp sama ginnaaw am ñu ma yaakaar am ñoo xam ne ñoom ñooy dox affaire combat yi loolu moo tax du ma wax ci ay combat boo gisee ma koy tontu li wax ci interview moo tax dama ko ci interview muy wax di talaxu di wax rek na bàyyi wax ju bari di wax ji amul benn njëriñ barke alxuraan bu ñu waree bëri dañ bëri ñoom wax ji moo fi nekk ni rek mais xamante nañ suñu biir bu baax a baax a baax bu ñu daje woon laa la ci mbedd bu ma ko nee jaaral fii wallaahi azim foofu lay jaar. caat meen tàppet ci mbër yi barkar xuraan. billaay wallaay watalaay waxe xam naa ko baax saraan. doo ko jël avance am na ko tëddal fii. déggoo li ma la wax moo tax ma wax la loolu loolu mu muy yàkkamti loolu jarul mu koy yàkkamti mu bëggee bëri rek jarul mu yàkkamti na promoteur yi dégg nga xool gars yi génne xaalis ci taal bi boobaa sa diggante sa diggante xam ne du ma moromam ci dara sa diggante ak Modou Anta. waaw Modou Anta tam làmb waaw làmb la combat bu neex boo xam ni làmb amateur la ñëpp ko bëgg waaw mooy li ma la sàng rek man du ma toog fii di benn mbër mais bu ñu làmb boole ñu war a bëri aussi tamit dañuy bëre yaa ngi dégg am na si lu mu jógee am na si lu ñu jógee waaw. gars yi nag ñu ngi koy wax ñu ngi si doon wax am na promoteur yu si doon wax ak yooyu mais ñun ñoom mooy li ma la wax rek dañu am staff sun ne sëf la ñuy. jot cee woo wax la ko. am na promoteur yu ñuy woo di ñu démarché di ñu wax mais ñun moom mooy li mu la wax rek ñun dañuy mal placé pour di wax ci ay combat yooyu xëy na peut être tamit loolu ñoom ñu ngi ciy sore ak staff bi wala dara ñun lenn la ñu am mooy combat bi taxaw na demal nga entraîné ñu nga dem préparé ci kese loolu la ñu sabab amuñu si leneen. boobaa ak léegi bi nga jógee sa combat yaa ngi dem école ba di contact. boobaa léegi waaw maa dem école ba parce que dafa am boo yoo xam dañu am combat am suñu boo di ko préparer moo tax dañuy nekk ndoog foofu ñoom ñëpp di ko préparer ndoo ak ñoom chaque jour. ñun moom ñun amuñu ay nekk ci combat wala ñàkk nekk ci combat ñun ñoom combat ñàkkam parce que ñun dañoo dëkk ak suñu ay supporters géej gi jege nañu salle bi jege nañu suñu école jege nañu lépp suñu koñ la nekk. moo tax amuñu temps bu ñuy perdre wala bu ñuy toog ci dara parce que tamit loolu mooy suñu liggéey bu ñu toogee defuñu dara wala demuñu fenn dañuy dem entraîné yi parce loolu moom ñun suñu doole moo ñuy fay leneen fay ñu loolu suñu doole kon bu ñu toogee entraîné wuñ tamit dañuy perte moo tax dañ ciy nekk chaque jour. bëggoon naa nga tàggatoo mais balaa ngay tàggatoo dama bëggoon nga ñëwul ma ci fee bi nga xamante ne amoon na doxoon ci komba sita ak Papa mu gis ne yow moom yéen ak ñoom yéen a xawoon bokku kaa ndax bi corona bi ñëwee bi ñu ajee seen combat dañu aj ñoom tamit seen komba ñu gis combat bi léegi mu def ñetti at ñu ñëw ba ci digg géew bi Euh, ay fay yu ndaw yàq ko damay jàll fii doo jàll fii fii laa jaar ban sànnante ndënd am ci bi nga ko gisee naka la la def en tant que mbër. waaw lool bi ñu ko gisee rek kenn rafetlu ko lu dëgg yàlla métti na mais man damay masawu coono ñaari mbër yi ñaari camp yëpp parce que làmb dafa xam nañ si dara ñun ñooy mbër ku wàcc sa combat presque deux ans muy Papa Sow di Siteu ku si nekk bëre bëre moo la gënaloon ku si nekk loolu nga bëggoon parce que tamit munoo wàcc sa combat ay mu dem ba ci jour bi ngay sàkk lu ko yàq. mooy ci côté Papa Sow di ci côté Siteu ñoom ñaar ñëpp amu ci kenn koo xam ne ko ñoom ñaar ñëpp koo ci xool ay préparation am xool leen jour lamb xam ne ñii dañoo ñëw pour bëri si mais nag jaam ak pexam yàlla ak dogalam yàlla moom mooy xool ay mbiram nu ko neex mu dogalee ko noonu ñooñu du ma am dara lu ma leen ciy wax loolu di leen masaw coono en plus tamit di xamal ne maanaam li fa am tamit du lu kenn di rafetlu mais est-ce que organisation bi jàpp nga ne mënu woon gën a yemb parce que euh, fii si tëddi fii Papa Sow di jaar tëggkatu si taa fa nekk fii si tëddi jaar tëggkatu Papa Sow fa nekk est-ce que jàppoon nga ne noonu la organisation bi mënu mënu mënu woon gën a jàkk waa xam nga daanaka wax nga question bi loolu yëpp ci côté organisation bi la organisation bi moo dese normal côté boobu dama amaana peut-être heure waa CNG bi la parce que comme ñoom ñoo yor wàllu organisation lamb ji waroon nañ ko mën a organiser noo xamante ni problème boobu noonu mënoon naa ñàkk mais xëy na peut tamit comme li may chaque jour rek jaam pexem yàlla dogal ma amaana tam bu ñu sóoroon ni lii mën na ci am tamit wala bu ko baaxee xel tamit kon dinañ ci teel a seen ay matuwaay xëy na nag lii dafa nekk lu gën mais man moom li moom lu ma ci wax ñaari camp yi laay masaw coono en plus message bi ma ciy lancé mooy parce que maa ngi tamit ci côté promoteur bi ñuy wax naan mbër yi du duñu leen téye ak yooyu mais mbër yi buñ leen yokkalul waruñu téye seen xaalis war a yokkal au contraire parce que lamb dafa met lamb boo waaj nga ñëw ba jour làmb ji mu yàqu du coobare mbëri parce que ñaari camp yëpp ko ci gis tey jini nii li mu def ci làmb ji avance am waaw mun la koo wax kon ñoo la war leen xaalis te làmb ji fees na dell salle bi neen ambiance lépp am na fa yaa ngi dégg man daal li ma ciy lancé message mooy promoteur yi mooy parce que dama dégg benn interview rek mu wax ne amalul ñaari mbëri reliquat loolu nag mu nekk loo xamante ne aussi tamit man dama koy naqaru dama koy métti lu di wax ni Papa Abdou Fall suñu papa la suñu lépp la ndax man mi sama carrière dafa lu bëri lu rëy luñ ci naa ne sama combat yu ëpp moo ko tëgg lépp samay combat moo ko tëgg xam naa ko muy nit ku baax amul benn pono xaalis du ko booleeg nit te nag lépp loo gis tam àdduna ay waxtaan la rek mais mbëri nañ xam ne tey jii nii dañ na ay coono yoo xam te ne buñ leen yokkalul xaalis bu ñu téye seen xaalis dafa metti parce que man mii di waxee yow maa ngi nii ba léegi nii CNG sama reliquat jotaguma ko. reliquat boobu ba léegi. wóor naa alxuraan léegi nii may wax yow nii sama reliquat génn ko lan moo waral boobu ñu ngi wax ay problème mu siège yooyu noonu nee dañ fa am ay siège ñu fa sànni genre affaire yooyu loolu la ñu wax mais dem nañ foofu convoqué nañ bi ñu demee aussi tamit wax nañ ñu loolu ñun d'accord nañ jégal nañu ba ñu jégal ñu mais nee nañu dañuy ñëw defar siège yi ñu leen loolu amul problème ñu wax ñu kañ la mais nee nañ ñu ñu déglu leen dinañ ñu woo mais boobu ba léegi ñu ngi leen déglu pour ñu woo ñu ñëw defar siège mais woowuñu. mais loolu tam du problème parce que combat cité bi ak Papa Sow bi damaat nañ fa ay siège yu bëri waaw léegi nag bu ngeen koy defaat ci nan ci yan situation ak yan condition ngeen ko naan defee. ñun. seen combat waxoon na ne ñaari saison dañ fa dam. Ah, ñoom <coughs> ñoom nee xam nañ ko. mais waxuñ leen ko. non waxuñu ko de mais ñoom nee nañ xam nañ li dafa yàqu ci saison. yaa ngi dégg ñoom loolu la ñu waxoon quoi moo tax tam ñun ñoom la ñuy déglu rek comme ñoom ñoom ñoom lañ fi teg tam ñoom ñooy suñu ay kilifa tamit ñu lu dul di leen déglu mais tamit lu ma si mën a wax mooy daal en tout cas war nañu jàppale daal ndax tamit mbër mu bëre boobu léegi xam nga dafa met boobu ba léegi ñu teesere li xam nga nga am ay bor yoo war a fay am ay affaire yoo war a régler boobu ba léegi amaana tey jii nii sax ñenn si ñi ñaanal sax wala yenn gars yi nga war a jox xaalisam mën nañ bañ a mais ñun du si ñun suñu xaalis moo nekk CNG ñoom lu ñu war a régler lu bëri ba léegi mënuñu si régler dara wax dëgg yàlla loolu tamit ñu ñaan xam nga ñu jàppale ñu daal wax ñu ban jour la ñuy defar séeréer ñu defar ko ñu mën a jël suñu reliquat mën a régler suñu yenn problème parce que yàgg na aussi tamit waaw yàgg na parce que boo xoolee combat boo xamante ne def na presque deux ans moom tamit xale yi nekk ci di waaj bu ñu waajee ba ci ba ci ba ñoo bëre def fulla ak fayda ku ne gis na ne keroog ñoom ñaa joxe nañ mais tamit bu ñu bëree ba noppi nga téye seen xaalis te ñu seen i boobu wala lijjanti seen i wala lijjanti dafa métti ndax làmb ñi amuñu ci dara daa dara dara amuñu ko Double Moteur mi la wax ne la velo bii laa jënd ci làmb mënul la. <laughs> bilaay yàlla la ko taxoo de au contraire dañuy def ci làmb dañuy dundal làmb mais làmb fayaguñu dara. parce que boo xoolee nii combat bi nii na deux ans ñu koy préparé ñu ñëw ba si làmb ji jàppale ku ne xam na jàppale mbër day yéex a génn te li ñu jàppale duñ ko jël def ko ci bés bi jënd ci ay billets jox supporters yi moo gisee stade li muy taaru taaru noon lool moo ko waral bokku ñu mbër yi nga xam ne tey dañ lay jox ay million tey nga jël ko def ko sa poche. parce que ñun chaque jour ak suñu xaalis làmb ñu ngi koy séntu ci kanam en plus tamit promoteur bi nekk jeune di investir ci mu munoon jël xaalisam def ko ci leneen mu investir xaalisam ci làmp pour jàppale ñu ku ne xam na ne Quench Double Moteur nekkul làmb boo xamante ni weccet moo koy taxawal làmb la boo xamante ne xaalis bu bari moo koy taxawal du làmb bu yomb ko mu investir jël risque jël ay bi bari def ci amul sponsor amul dara kon ñun mbëri tamit ñoo waroon ñoo war a jaayante ba nga xamante ne tey jii nii maanaam moom dina dina dinañ wàccoo ak ñun moom te wax dëgg yàlla tamit bi combat bi jàllee woo nañu sant ñu gërëm ñu ndax lépp lu ñu digaale woon ak moom li ñu waxante woon ak moom def nañ ko ndax sunu xaalis maanaam mën naa ne sunu xaalis xaaj bi yëpp ay billets lañ ko jënd parce que boo xoolee sunu xaalis xaaj bi yëpp ay lañ ko jënd boole li ñu jàppalee lépp ay billets lañ ko jëndee def ko ci combat bi moo waral nga gis journée bi demee noonu moo waral nga gis journée bi demee noonu loolu noonu tamit sant nañ ci yàlla bu baax ba nga xamante ne am nañ ci promoteur bi un franc billets yi ñu jëloon si moom yëpp bañ na ko ba jouru làmb ji lañ jëndaat ay billets bi ñu nee veille combat bi lañ dem jënd ay billets jour combat bi jëndaat ay billets kon wàccoon nañu moom ci côté boobu noonu moo waral tamit ngay gis promoteur di ñëw man loolu nag dañ ciy sant parce que loolu suñu premier combat préliminaire ba léegi Pape Abdou Fall mu ngi may dégg Abdoulaye Ndiaye mu moo ko taxawal suñu combat préliminaire ba léegi amul benn combat bu ñu mës a tëgg laa wax te jënduñu ay billets ëpp lu ñu fay. da di jënd billet lu ëpp li leen fay. waaw a amaana peut-être sax ci combat bi sax la la la loolu amul parce que xam nga nag am na niveau combat yooyu toll kase bi day day day day yokk quoi kase yi ñu fay mënoo jënd lépp ay billets mais dañuy jël moitié bi presque jënd ko ay billets sa boo xoolee ñuy dugg esaat suñu ndax suñu jëmm te jaay ñu leen ay billets moo yëpp foofu ñi nga xamante ni ñun ñoo jënd ay billets kaas. parce que koo xamante ni tey jii yow di nga am combat lu mu dee dee di nga yëkkati benn 3 millions benn 3 millions 500 jox mu jaay loolu yombul. sans compter ñi nga xam ne dañuy ñëwal seen dañ lay ñëwal te ci stade bi la ñuy dagg ay billets. est loolu mbër yu mag yi sax defuñu mais loolu dañ koy def parce que ñun suñu xaalis la am amaana mu mooy li ma chaque jour ci loolu la ñuy xool chaque jour dañuy bëgg journée bu ñu ñëw ñu taaral bis bi ci géew bi ñu def li ñu war a def. loolu moo waral sax ngay gis tamit boo jugee ci combat promoteur yëpp dañ lay songu mbër yi dañuy bëgg a bëre yow promoteur yi dañuy sawar ci tëgg parce que loolu mooy làmb. ah boobu aussi tamit dañ ci sant yàlla di sant tam ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo siy jàpp ku ci mel ni tamit suñu papa Abdou Khadir Jëlaan su ci mel ni tamit suñu papa Diop si mention spéciale waaw ku mel ni suñu papa Diop si ay Iliman Gueye taalibe Serigne Saliou Mor taal bi taalibe Serigne Saliou ku ci mel ni Abou Moïse Pape Diouf ñooñu da si jàpp ku ci mel ni Bounama Tall yaa xam bay ministre ku ci mel ni Seydou Camara baabu Touré yaa ngi dégg Aïssata Diagne ñooñu dañ si sonn bu baax mooy ñi nga xam ne ñooñu nekk si mairie bi dañ si jàpp bu baax a baax a baax ku ci mel ni tamit si xam nga ku ci mel ni Diop Dolar moom da si jàpp bu baax Modou Diagne ñooñu dañ jàpp si combat ku si mel ni Bokar Diela moom mention spéciale fast food boobu fa laay lekkee bi bërëm boppam bu léegi fa laay lekkee lépp mu yëkkati xaalis di ko def si man kooku dama koy sant bu baax di ko gërëm Bokar Diela xam nga parce que ñooñu dañuy sonn si ñun ay toorodu bu sëñ Fallou gars yi nga xam ne mafia boo yi nga xam ne supporters yi nga xam ne mois lay des ñu fanaan fii di fanaan si koñ bi chaque jour te defaloo leen dara yi morom lañ defaluñ leen dara du un franc bu ñu yëg di leen ngay jox parce que amuñu mais ñoom ñooy jël seen moyen di daj kat di dajale seen ay wéccat di ko def si ñun ñooñu dañ leen di sant bu baax a baax a baax ku ci mel ni maam Góor Samb dañ koy sant Ndiaye Ndeela mention spéciale mu ñu fayam soon na ci combat laat borom somon laat combat bi presque foofu laa ko waajee nga ko mbuur sama gënaa laat boobu kooku dama koy baak yàlla yàlla mi fay mu fayal ko boppam parce que durant ñu nekk foofu ku ne xam ne ni yor ay mbër dafa métti man nekk fa plus presque ak ay huit mbër moo ñu yor salle musculation fayal ñu xaalis bu weex tàll ay professionnel di ñu entraîné lekk manqué wul naan manqué wul añ reer ndékki nga mën ko gérer ay huit ponkal yombul pendant ay weer ñu nekk foofu noonu kenn gisuñu kenn xamul fu ñu nekk kër lëmm la ñu jëlal kër lëmm laa la kër gi manqué wul dara fa lañ nekk regroupement di fa lekk di fa naan di fa def lépp di santaale tam waa Somone bu baax a baax a baax a baax seen monsieur le maire bu nekk Somone Bokar Sadj dañ koy sant parce que combat bi mu taxee car bi jóge Somone moom moo ko fay maire Somone Bokar Sadj moom moo ko fay ak ñu ay ñoom mbay ñang gars yi ak ñoom Cheikh Fall almi ñoom gars yi am man bi ma xamante ak ñoom sax yàggul mais dama ñëw ñu def ma comme seen doom ma préparé foofu combat bi presque trois mois laa fu nekk di wàcc combat bi le maire moo fay car bi nga xamante ni supporter yi foofu lañ jógee supporters yi nekk foofu nag mënu ma lim seen tur ñoom ñëpp parce que bari ñu fa jugee ñaari kaar moo fa jugee yoo xamante ne ñëpp dañoo ñëw ñu jëndal leen ay billets jox leen ay t-shirt leen kaar te maire bi moo si jàpp maire Somone bi ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex moom aussi tamit ndax c'est la première fois ñuy doog a xam mais lépp nag Abdou Lahad la parce que Abdou Lahad boobu moo liggéey loolu yëpp moom moo moom moom amuñu fayam daal moom dañ koy bàyyi yàlla même fay rek mu fayal ko boppam ak ñu nekk Somone ñu nekk Petite Côte bi ñëpp ak waa Touba xam nga di sant tamit sëñ Sidi Mbacke alxuraan jàpp na si combat bi sëñ Mbaye Wade alxuraan xam nga ñi siy jàpp ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñaanal tamit te xamuñu leen bëri ko ci mel ne sëñ Maïs gars yi jàpp nañ si bu baax a baax ak salle bi nga xam ne fi nga ñu fekk aussi tamit salle bi fii la ñuy entraîné bi ñuy ba dara du dara avant ñoo nekk mbër avant ñooy bëree waxu mbapat fii lañ doon ñëw di fi entraîné di fi entraîné suñu grand Assane mu nekk jëndal grand moom Maïs ñu nekk ay jëndal grand moom ñoo sama mag ñoo doon ànd ñu ñëw fii di fi foo di fi foo di entraîner dem bay entraîner fii te mosuñu fay un franc am loolu yombul tamit quoi chaque jour fii la ñuy ñëw di entraîner mosuñu fay dara wallahi azim barke alxuraan boole ko bu ñu amee combat ñoom dañuy participer salle bi fii nii am na groupe boo xamante ni mooy groupe bu 11 bi moo tax ma bëggoon sax nga ñëw ma dem fekk mooy groupe bu 11h bi dafa am xam ne man ak ñoom ñooy nekk fii di entraîner combat bi ñoom dañu cotiser cotiser seen ay junni junni jàpp si combat bi te fii la ñu xamante ci salle bi. ñoom ñoom ñëpp fii la ñu xamante rek di daje di entraîné dem ba bokk benn groupe di entraîné chaque jour wallaahi dem ba maanaam ñu dundul naa loo xam ne combat bi dañ ci génnee seen xaalis ñoom ñëpp def ko xam loolu yombul quoi suñu écrit tamit xaarim jaxate tamit mention spéciale kenn la si ñun ñu koy sant baa di ko gërëm général bu dugul moteur ñu koy sant baa di ko gërëm di ñaanal écrit ba tam ñi nga xamante ne nekk nañ fa booy am combat yàlla may leen ndam ku ci mel ni caatu mbomboy ku ci mel ni caatu robes boo yi nga xam ne am nañ combat foofu noonu ñu leen di ñaanal ku ci mel ni Tidiane tamit xam nga ñu leen di ñaanal yàlla suturaal leen may leen ndam yu sedd guy boo yamagul combat yàlla may leen ay combat coach yi aussi tamit ku ci mel ni Cheikh Diaw Balla ñoo ñooñu mooy loolu dañ leen di ñaanal ñooñu duñ leen sant dañ leen di ñaanal parce que ñoo ñoom ba dara du dara te lii dama bëgg nga génnal ma ko Ouzin ñooñu noonu ba dara du dara la wallahi azim ñu sonn si ñun dégg nañ lu nekk cinq la ñuy bàyyi seen liggéey di ñëw ba bëreeguñu sax arène ñuy ñëw di ñu entraîné di bàyyi seen liggéey ñuy dégg façon wax bu nekk nag teewul ñu jàpp fu ñu jàpp rek te bu leen jox yoruñu lu leen jox parce loolu mooy jàppale jàppale mooy maanaam nga fekk yi nga xam ne xamoo ndax dina doon dara nga yëg sax mooy di ko dajab di bàyyi sa liggéey di sa place ku ak Cheikh Diaw Ibra Faye sëñ Mbacke xam nga Cheikh boobu ñooñu dañuy bàyyi seen liggéey sa ngoon ñëw di jàppale booy te yàlla rek tax kon dañuy ñaan yàlla benn seytaane ba ñu dugg suñu diggante yàlla gën a kon dëgëral loolu noonu parce que tamit xam nga loolu noonu dafa am solo daal parce que ñun dañuy jàppale te xooluñ suñu dara ba nit ñi te ñun ku ne xam nañu mbër ñun ay booy lañ dañuy def ay erreur des fois ñu def ay erreur yu mag des fois ñu xam nga ñu sant ñu dara suñu wëlbatiku def leneen teewul dañuy am compréhension ànd ak ñun te defaluñ leen dara dañuy topp te yàlla tax rek mais loolu aussi tamit ñun dañ leen ciy sant parce que yombul compréhension boobu noonu ay nit ay mag di ko am si ay rak kon dañ bu baax xam yéen ñu ñaanal ku ci mel ni Dame Sugar tamit day def open press sax fa laa bëgg a dem nii sama copain la sama doom la sama mbokk la sama deret la dam ko ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam bi bu sedd guy ci combat bi mu jëm dimanche Dame Sugar parce que boobu ñoo nekk noonu regroupement fële wax dëgg yàlla kon mënuñu loolu di ko ñaanal ndam daal ci ko combat bi incha allah rabbi. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ci Wassare Lamb ñu seet sol ki nga xamante ne mooy bëgg waxtaan moom. xaadim nag ñoo ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko doon wax na nag mbër ma ngi nii di leen jox dig daje beneen yoon ci wasaare làmb jàmmaarloo